a candidat la ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal Malick Gakou tamit moom waxoon na ko bu yàgg yàgg bu dee Ousmane Sonko loolee kenn laam-laameewu ko bu nag ñi nga xam ne ñoo ngàng nguur gi nee ma ñoom waa Benno Bokk Yaakaar jamono ji kenn mënu laa wax maanaam kan mooy si seen candidat xel daf cee tey bu nag Mary Teuw Niane moom li mu wax nee na nag dina doy waar yéeme lool Macky Sall daal di présenté waata Karim Wade la ñuy xaar ngir nag mën a déclarer seen candidat ci élection wax ne Ousmane Sonko am na sañ-sañ maanaam daal def ne meeku tuura dem nag wuri ay militant ma jamono ji nag nguur gi dañoo war a ànd akuk dal maanaam sérénité yéene kaay gi ñu xëy fekk fa duudu waat nee na yàggatul dara Kaani Maysa Wade dina ñëw ci réew te nag ñoom li nga xam ne moom la sa sàkko maanaam ñu daal di attewaat Karim Wade Ismaïla Madior Fall jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllum yoon ci réew mi nee na fii ci Sénégal ne dañuy tàggu yoon boo xam ne daan nañuy bind ministre wax ko ne ko Karim dañu ko bëgg a attewaat loolee avocat yi Karim Wade defu ko te Ismaïla Madior Fall nee na Karim Wade sax mënoon nañu koo atte mbir mi gën a doy waar yéen kaay gi di alerte nee na xaw ma ñan ñoo ànd ci ñetteelu candidature Macky Sall waaye nag nañu ci génne Ibrahima seen bu PIT moom àndu ci benn yoon te nag daat may ñaawlu bu baax a baax ñi nga xam ne ay faucon lañu maanaam wër Macky Sall di ko jéema a ruube di ko jéem a ñetteelu candidature te nag loolee maanaam xaru ñi lan la ñuy ragal ak lan la ñuy tiita ci ñàkk nguur gi loolee moo ma jaaxal man Ibrahima Sène Souleymane Ndiaye mi nga xam ne mooy mooy directeur général bu SOPCO nee na bu dee ñetteelu candidature Macky Sall mooy taal Sénégal ma xam ne Sénégal dina tàkk jàppeta ndax ñoom dinañu ko amala yéen kaay gii leen fa ñu xëy fekk fa Moustapha Kane mi nga xam ne mooy directeur bu ASEPEC bokk ci APR benn bokk yaakaar moom d'accordul benn yoon ci lu jëm ci ñetteelu mandat Macky Sall daat nay wax ne jamono ji li nga xam ne moom la ñu jiital mooy intérêt réew mi te nag am na loo xam ne ñu mel ni maître Aïssata Tall Sall lu jëm ci wàllum transhumance lu ne ŋàññi ne ko fii jamono ji bokk na si ñi njëkk a transhumé Souleymane Ndéné moom tim lu nekk waxoon na ko ci lu jëm ci wàllum transhumance ne woon na sax ko transhumé dañu laa war a rey Souleymane Ndéné Ndiaye moomee la mu wàcc woon lépp daf ko lekk waaye nag kenn professeur Aliou Sow mi nga xam ne moom moo fi taxawoon ŋàññi Macky Sall ne wërta def ñetteelu candidature Aliou Sow boobee tey jii mooy diggal ñetteelu candidature Macky Sall ànd ci ak moom maanaam la mu wàcc lépp daf koo lekk journal bi de Le Réveil Quotidien moo xëy di ñu ko kaay gii si ko mu njëkke mu ñu fekk fa Aliou Ndao procureur bu kër yi ba woona daat nay wax ne Macky Sall ci boppam moo ko wax na ko bàyyil Abdoulaye Balde bul ko laal bul ko jege te moom procureur Aliou Ndao nee na Sidiki Kaba mi nga xam ne jëloon nañu ko jiital ko ci ministère de la justice dañoo bëggoon a jeexal lu jëm ci wàllum topp teraanga julliwul ci moom Aliou Ndao na tamit ne ab enquête ubbi woon na ko ci lu jëm ci juróom-ñaari milliards yu Taïwan yi yi nga xam ne moom la ñu tudd Macky Sall nee woon na tamit commencé woon na ubbi ay investigation ci lu jëm ci patrimoine Macky Sall maanaam huit milliards yi moom procureur Aliou Ndao nee na nag mbiri Karim Wade mbir la woon yoo xamante ne yu diisoon la ndax dafa jàmmar la woon ak ñoo xam ne bëri woon nañu xaalis loola doon yëngatu ci lu jëm ci wàllu mystique yéene kaay gi di leen foo di ñu xibaara naan ñu scandale am na ci femme cadre yi nga xam ne ñoo bokk APR ndax ku ji mel ni Mariama Sarr ak Diégui Diop ñooñe dañu leen di tuumal dañoo dajale xaalis ci turu femme cadre yu yi ba pare daal di koy séddoo yéene kaay gi di Rewmi Quotidien Gaston Mbengue nee na Malick Gakou Macky Sall lay liggéeyal kàddu yooyu nag moo naqari Malick Gakou loola ba tax nee na mbir mi dana ko yóbbu fa mbaxana doone benn na journal bi di wal Fadjri nee na Aminata Touré jamono ji wéet na loola ndax ñi nga xam ne ñooy waa benn bokk yaakaar ñoo ngi koy songo di ko attaqué te ñi nga xam ne ñooy opposition bi ñoom tim ñoo ngi koy kokkali yéene kaay gi du l'Observateur xëy ci loi de finance 2023 journal bi nee na lu toll ci 380 milliards la ñu jël jagleel ko police ak gendarmerie lu toll ci 277 milliards la ñu jox gendarmerie ngir moo amal ci ay patrouille ak nag lijjanti lu jëm ci la ñu jox police ci lu jëm ci wàllum sécurité publique yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu forum international de Dakar sur la paix et la sécurité tey ji lay ubbi huitième édition bi yéenekaay gi di Dakar Times nee na forum international de Dakar bii nga xam ne moom la amal te mu ubbi tey dañ see fàtte jigéen ñi ak ñi nga xam na ñooy xale yi ndax nag bëri na ñoo xam ne ay ndaw lañu di dugg ci entreprise terroriste yi li koy waral mooy ñàkku xëy gi manque de formation ak lu jëm ci ñàkkuk financement gi am ci jigéen ñi ak pauvreté ak ndóol gi nga xam ne moo am ci réew mi moo tax journal bi jàpp ne forum